Tubarsax ñun carte box bala pulo yeltanga ngana carte fay membe sele say be suñu ubbee puul rek nga joxe sa carte nga fo nga mbodu suba nga sori bu ñu wax ne nañ xaar be suba ñu soog a dem koy au route moto moto koolem fo tardé mun naa am la njuree soto am ah, moto bi paan wala leneen xew mu gan am tardé wara mbe mbe wulal suba mbe sora mansa ko ngala ngana carte o fay way dama wala dama tela jog suba ma de mansa ko sami carte fansu moto tebulo te yo amulo sa moto bopa hani fansu moto bebulo même so amé sa moto bopa isna fura karado la la juro ñew ex ci ñoo tela joxe kana chance taaje buñ jël dal ben ben chance momo jaato be kendari ke kepp ko xamne yaangi wër hani men sa sa ta jubano même ñu febar te muna sox hani men sa sa ta sa sa ma ngay be meana ko mota mo sa sikano même ku febar sax te febar bi lotlo ko ñu mun ko ekati yobbu ko kana jutu karte ke sera buñ leen ñu xeeb benn karta wala mu wataaji bayramoti loolu rek la ñoo xeexee mbir kandu hana drafam président jamme gagneta ngir su président jamme winee na gagneta eh, lowa riba ngajo ka gagneta jan su gagnee lowa riba ñu gis ne gagne na fii ngajo ka eh, gagneta Kiang West ñu gis ne gañe na Kiang West mais mu ne jiibee la lan la seet foofu kandu ga i gañeta ga ah, yirikoo yirik la ngir amaan boo gañee lim boo gañee Euh, ñoo seyala be keeriŋ dafa mel ni affaire bi ñoŋante la wo niŋ bankoo karadolu mboolu le tembe la moo yeneeni euh, gox ci réew mi moom la ñoo seet ñiŋ manke dankoto ngañati de lii nekkul rek ne pour ñu win rek bankoo moolu meŋ bee tamita jaŋ waaye gox yi fi ñëw yëpp fii e bee yaa fo président be la ñoom ñëpp wax na ñaata percentage la ñoo jox président Jammeh atolu yaal la pour nte soo fo altolu tuwaya la jaŋ wax ngeen jox ngeen ma taranga pour ma wax ci seen ana national mobilisation sa korontota le moo tax na ma ne le national mobilisation dafa yàqal dafa yàqal te le man dinaa wax lafta maintenant wala mu ñenti li ma bugg a mooy he baa fa la bari eh, inna bari bu ngol sax bari ki yang ki yang su ko defee bari bu ngay wax ne ha waa ki yang yi de fi mu nekk ñoom daal Eh, jaaxal nañu ali nga kata nañ leen ñu góorgóorlu akat yow fay ñu joxe carte moo kumo bunda folo folo eh, saba ñaw mendi ñu suma ñetteeli kàddu mooy wolem ntol mem beebi jang moo dina ñun ñëpp ñu fi nekk jama mem beebi kono jang mbooloo mi fi nekk nii a beemu APRC AFPRC APRC la silolati ñoo ñëpp AFPRC APRC la dawul fanam kafutama men yalla ko mën naa ñooñaa la am na ñoo xam ne bokkasi nañ commencé wu ñu la ñun bari ko mbari muso ya fa waaye comme ni ko député ministre waxee suñ jigéen même eh, kumaata je dron li ci gën a am solo mooy. atul patios Euh, selo tey selo tey yéen ñi nga xam ne ni depuis ca cosaan ba yéen a nekkoon ba taxawal parti bi al sinkumbal tey takita jal baramata ah euh, seen baaraam yi tampon nañ gaañu ci irool yaal wirisi ah garab yi o xoos leen euh, ku jamal kita jee lu bari xew ci biiti loola mu ne tey nga sutoo ñin teeta mu ne sutu boobu mokkal nañ ko fo kun koo dookuuta bañ ci liggéey tool sa fenti jee pour que kun koo ñin ka mun a fengu léegi desu dara pour tool boobu leen ñu jamaa tool bi alhamdulilah rabbil alamin loolu sant yàlla bu rëy la jenki ala fo al nañ leen leen yaatal ñu welcome leen pour ñu kamma ngir ne atol kam men kelonum yéen li ngeen doon xeex ñaa yi kiyamano kiyama dafa kumbota soo gisee fii ba ah, jooy mais a ah, kumbon ko jooyloo fii même suñ ko su ko ñu ko waxul xam nañ ko bari waaye li ko kontaan loo itam wole mu moo di ne ataka même beekata moom lim noo góorgóorlu yëpp menu kaa neng ñi ko doon saaga menu yaa lipa ñi ko dóoroon menu koo beekaa la ko doon xas ati yaa kaa yaa kaa te la kamma te moom li taxoon ñu def loolu kinoo meng euh, euh, sutoo men tewo kamma mu ne ci sutu bi mu doon So munafɛn min bɔtɔ sutɔ kɔnɔ mun ne njeri la génne ci sutu boobu i n'a ye boloku ñu ñëw raxas seen loxo i n'a ye siik boo ñu ñëw toog di ko lekkal kono ñan na faarale le kon moom biiram war a tang naa fulo be muwalte wax jee fukkaa ñaar yëpp loolu menu naata bii ñi ñëw tey men naata kunum ñi ñëw démba men minaa sooma ñi ñëw ëllëg nii naatal nga foy mbutal tamura rek nañ leen leen bisimila ko yàlla men tambita kunum su ko defee li passé on démba yaa ke men kamma li taxoon ñu def ko al sadio ko alhamdulillah jaaraama ñu gis ne sant suñ jaaraama eh, eggana kadi diinoo mu ne même diine bantol men beeɓe jam ñun ñëpp ñi fi nekk mu diina dunkewol ñun ñëpp njiiti diine lañ wala xam eh, nañ dara ci diine e mu muslimooti ñu nga xam ne e mu cristianooti eh, wala chrétien bari mbe mu diina dunkewol waaye ñun ñëpp dañ muhammad sallallahu alayhi wa mu ne suñ seetee rasul sallallahu alayhi wa sallam yamula folol yaa fojanne am na ku ko fi junda ci wax ji fii docteur tangara yaa fojanne docteur tangara waxoon na ko ci men man karan même ñi jàngul nga omar bun xataab xibaaroo mooy le dinañ kabra na man du diinoo kono eh, bam dugg doon ci diine xam ne ni noonu la jàmbaar leen kabra naata dunjee pour bañ islam waaye bam duggee ah, wax nañ ko kollu maata dunta diinoo kono ñu ne kere bam na koto umar na naa yatana diinoo talantoo timmatale mu ne eh, rasul waxoon na ko ne omar de lim bokkase ci diine ji suñ taxawaay génn naa eh, eggal léegi suraxata boole ñaama suraxata noonu doolu fanam boole ñaama ak yeneen ak ñeneen doolu fanam ak ñeneen woto kamansero tawala kon nañ leen ñu jël firnde ci ñooñu baawontul quand même beekele kunum ñun liñ doon xeex démba wala ñim parti wala yirwaati banko mooy jëm kanami parti bi ci réew mi président jamme nan ala siwoñ banko kam yirwa ko ni eh, samante amenatim banko kam président jamme njëriñ lim indi ci réew mi fii bi mu jëlee nguur gi ba tey mbewo fom fonal drong loolu dañ koo baamtuwaar rek hanim fam balu ñaa même ñun suñ ñoo dundee hanim fam ni nga ñoo ñaadaa jibee même suñ xar xanam suñ gisee suñ xar xanam ah macha allah tabarakallah sant yàlla bu baax mbeeta mbeeta buntum fan la no ko doola ranke su fa la ko do fesal suñ neegi wala saxay ak ni nga ni nga lanka sino way suñ mëna nelaw wulta nga ne da sa mo dañ waro ci de ka ne be konton suñ waxtu an ne sima waro ci da ka be sima waxtu an ñu dinañ reer ma fo ñu man ci afrika ko ñu man ate afrika waxuma ne façon bobu nekut afrika de bari foire ñi banku dingo bi jang waye lo ñaka ñaka ga nekk rew nekk ila ñi domor san sabu bu ko fola sa ñetti lekay añ reer ndeki do ko andi tuma do foy ke te da nga nelaw be xandoor ñu laa e kayro nin tenkugole o noo te jàmma ak dal moom ani yiriwa ak itam yokkute moome yo simma loolu ku ñu ko indil ah foog nga la tentu doron ah, loolu le foog ñu sant yàlla sa daani fanam faa meññaar foog ñu ñaan yàlla rek loolu mu yokk eh, Kiang West mu ne Kiang West baaw nim be Lower River fola suñ dee wax Lower River e laala wala nga tan nga tan dafa mel ni Kiang West moo amee jafe-jafe bu baax bari nga maa ñaa meñje ñi ngi kardantan kono waaye weeru néew yi ñu génn kiyang wes funding ke ol ndawi kiyang wesi kabirin mbari musuma fatou ndiaye tari dati nya fo foñña di dipi suñ jigen fatou ndiaye wax nañu fa sabrañ hakkili kendo soto bam amé xel yu rafet chef ya mutafé chef bi jappalé ko alpha kendo ya mutafé fa yu bax jappalé ko ki wol ya mutafé daw ñi ko gobano ya hañindi gobano govano loko ko to ma fana ya mako ya mutafé khalifa kambi suñ ma khalifa kambi député national mobilisation mako je national mobilisation dimbalé ko fo nga alay sirif baaju nala ka fo molu am alaaji sirif ak mbolom kafo warata mu melni mbir mi yokuna e woto woye ñaaf woye hañindi jibaka loolu tax nañu ñeme kiyang west an yo excellence mbañim fole ko yo excellence ñu ngi laa wax ne kiyang west fa ninkiwol meme kombo jang kiyang west ndaw ñi nekk kombo fii ah ye ñoo mooy baakel déggoo nañ trop ye ñoo muta baakel te jàppante ne kantu banque eh, eh, kabiriñ ma maŋ datata mu ne ba yëngatu bi commencé ye banko tama si la nga men kala muta ah war nañ réew mi ñaari yoon ci lim yëg ando en eh, registration no registration bi ye momen samba ila kato kan nit ni eh, fexe be yobulen len ci sen ah, gorgolu ma sha Allah man niyo sila fol kilin kilna be la be yalla yalla lo lepp yalla nañ fekke be bes ba jot e eh, o ben samba la muntu ko deke lolou fon la yobbu suma wax ji ke mbadin kiyan kolo ani mbadin lo wari man kol suma mbokki kiyan kay ak wa LRR yo excellence ko nga fo ni ko nga fo ko ngi tentu ngi jay yo excellence ñu ne ma gërem la sante la mbadin man kafu ñoma suma mbokka suma xarit honorable ministre khalifa kam kambi honorable deputy minister Khalifa Kambi parti yo ko naɓe ɗon jami mbegolon parti bi nin ci taxawee ñëpp xam nañ ko yaa toon mo yaake ministre ti gat tànn ko def ko ministre alam la démarro kan ci kaw ndimbali e, bala mo bala maa kuya fintita bala mu ne yaramam naqari e, asitata laaɗum a lopitan to jande muno naatteɗa fii ci lopitan mi bañi abi tara borin jannin casamance guine bisa ko mbita mo fi jaaraloɗo ɗi dem di uti garab guine bisa walla casamance o sembetaate la loolu amu doole hanintul ngam buloo be kafu ma même ñun ñëpp suñ boole woon suñu a feeraten na sembeten na amuñ pexeem amuñ dooleem ka samba tubaabu du pour yóbbu ko bitim réew ay kar kar kar juróomoolu ke jee def ay weeri weeri weer di fa anaa la musoo moom moo jabaram laban la ni même maa long gannaaw gi soo ko xamut sax ima la saasaa mooy soo déggul feebaram ina benda siloo kan nga taseeg moom andi yaa mooy a tamatal noonu ga dégg ne dafa tukki woon i e baafa la faatata liifoo la tubaabu du ne dafa demoon liif bi bitim réew kandoo ak kuurantoo man seenam ngir eh, nekkul ñi xamal a jaatu ko Kenya wér naa faj nañ ko ba mu wér mu dellu si woto ko yem yem baadiŋo maa koy faŋo baadiŋo ye a maa koy kon suñ mbokka sa mbokka ga dimbale ko ko joor nan nto la joor nte joolanoo ñun de duñ la mun a fay bari see tentuŋe waaye ñu gërëm la sant la ñaanal andum be kataw kata ke la fanaŋ te léppa lu ñoo def itam mboo katoo lafaale la dinañ ko yokka kaaje ko ñu gis ne i kana jamfanti nga gis ne i naa sutiyanti bu ñu bu ñu bu ñu gétti itam nga gën ñoo gàtt wala niŋ carte fayta moo loolu moo di su élection jotee mbe Gambia du laa doolu fala wax yeneen gox Gambie waaye Kiang West moom duñ ko waxati. Eh, ni ma botaje. su gannaaw loolu. opposition o. mu ne opposition. comme eh, gouverneur yafa ñaame. comme ni ko gouverneur Juwara waxee. ka amina genuine a soobee ma mais yaalon ko alafta gambe ay gambel kanu ko mbe banko ñin na mbeñu ne kela même même bi sinja mam men no mbole kela wota keri kote dañoo wax ne ñi ci déggu ne lii laa war a defal gambe wala lii laa mun a defal gambe loolu amul ci ñoom lafta la opposition patriote konodron dama bugg a nekk rek opposition ci parti pour se too soto